dal leen ak jàmm ñu xëy tàqan yi yéene kaay xëyandoo tàmbale naka bés bi bés boobee naka dikkaat na ci législative ak caravane bi nga xamante ni coalition ñoo ngi koy amal naka jàppale naka violence bi naka daal dinaay battre campagne bu baax a baax yéene kaay bi nee na ca Thiès naka otoom dañ ko dal dee yàqati bu baax a baax moo di maire ba Babacar Diop naka ci jamono ji dafa porter plainte contre ñi nga xamante ni ci moo di sécurité bu Ousmane Sonko ndax jàpp nañ ne daal ñoom moom ci jamono joojee moom ñaari doomi aadama ñoo ca amee ay gaañu gaañu yoo xamante ni ci ay bal lañ leen dóor ci diggante Benno Bokk Yaakaar ak souvenir jëm ci nag député boo xamante ci moo ngay nettali ay de moo ngay jaxasoo de ndax violence ba naka tàmbali naa juddu yéenekaay bi ci xëy fësal naka Guy Marius Sagna ci biir yéenekaay bi ne naka bu faloo dina xoolaat bu baax a baax takk deri waaye nag am na lu ne faaw rek ngeen soppat ñi anam bi nga xamante noonee ngeen di taxaw agression jëm ci docteur Babacar Diop naka ñi nga xamante ci ñoo di garde bu sank Sonko ñoom lañ ci joxoñ baaraamu tuumar waaye nag nee na dina ca porter plainte fu mu yem neex lii quotidien di kat na ci faatu François Mancabou nag comité Mancabou ma ñoo ngay sàkku justice waaye itam di dànkaafu nag ñi nga xamante si noonu la ñuy moom la ñuy seen doom boobee ubbil yéene kaay bi source a Barthélémy Dias moom si jamono ji suliwaat na dossier Petite Rutine bi nga xamante moom lañ doon toppee nag nga xamante ni garde à ci jamono ji couloir de la mort la ndax jamono ji naka daanaka lañ fay lim ci ñàkk seenu bakkan bari na lool de yéene bi xëy na ko fasal leneen tamit moo di campagne électorale bi nga xamante moo di candidat yi ñoo ngay amal seeni caravane ak li nga xamante moo di seeni ay midi naka di dagaan dagaan askan wi ngir rek ñu dem ca pinc ndaw réew ma Walfadjri la xëy fësal moo ngay enfoncé bu baax baax des portes ouvertes ubbil yéene kaay bi reconquête ca yoof naka Abdoulaye Diouf Sarr moo ngay labouré densément fi nga xamante moo di yoof Serigne Fallou Mbacké jógee na yeewi askan wi jëm naka fi nga xamante moo di Benno Bokk Yaakaar la xamle rek moo di biir politique moom trahison lâcheté hypocrisie bokk na ci li nga xamante ñoom ñoo ko moom da seet loolu rek benn bokk yaakaar bu jurbel moom Ahmed Dieng moo ngay rafet bu baax a baax unité bi nga xamante ni gisaat ko meeting ci militants yi nga xamante ni ñoo naka ci politique njaboot gi nga xamante moo di François Makabuté mu ñàkk bakkanam jóge ci garde à ñoom naka la demee ci biir li nga xamante moo di ca garde à vue bi détenu mort nag garde à vue l'indignation générale ñu bëri ñu ngi koy ñaawlu ndax anam bi ñu gis nag ñuy garde à ak nañ cay faatoo dafay yéeme lool l'évidence yéene kaay ci la laxi a si moom la ñu ko ci biir yéene bi jàpp leen Dakar Time ak campagne législative sans projet sortez vos programmes daanaka nag bu ci bëri nag bu ñuy wax rek ñu ngi ñu si bëri nag ñu ngi wax ngir dagaan dagaan baatu askan waaye nag programme zéro amuñu benn programme boo xamante ni mun nañ koo tëral ngir rek jox ko askan wi ñu mun leen a votel loolu soleil yéene kaay nag wàllum tàggat yaram la xëy fasal ak football féminin maanaam football yi nga xamante moo soxal jigéen ñi Sénégal nag si ñoo ngi si buntu mondial bi nga xamante si moo di waa Tunisie kon nag ñoom benn pas rek bu ko defee amaana ñu bokk ci moo di libération yéene nga xamante ni moom la xëy fësalee naka nee na daraam naka maanaam ab njombe nee na daraam naka benn waaye daal buy wuyoo ci lu m gay naka moo fa daal dee ab doomam boo xamante fukki at ñeent la am ay yet la ko daal dee dóor ba mu ñàkk ba kanam la mu wax enquêteurs naka moom waajur boobee nag nee na da koo bëggoon a yar corriger ko ba mu defee ca sëg yu piki naka waaye nag ñi nga xamante ñooy responsable morgue bi boobee nag ca piki naka Touba xamante ni taxoon na loolee tax nag ñu daal di koy yoole yóbbu ko ca police da ngay seet loolu rek jëf ju ñaaw ñoo ko déggandu jàngeen jëf ba ëllëg